bisimilah barke borom tubaa kon mbokk yi niñ ko àndee ak yéen suba ak léegi fii ci Touba ci euh, complexe Cheikh Ahmadul Khadim ci ubbiteeg daara ji nga xam ne nii Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moo ko woote woon gis ngeen mbokki taalibe yi ñëw nañu. njabootug maam Cheikh Ibrahima fal daal di teew nii nag niñ ko àndee ak yéen rek. ñu fas yéene taataan ay kàddu yi nga xam ne nii kaddoy barkeelu la gannaaw seen teewaay ànd ak taalibe yi di ko barkeeloo ci Zikrula di ko dundal ci Zikrula kon incha allah rabbi euh, ñu ngi fii di leen xamal ne Serigne Fallou Fall mu ngi ni toog Serigne Moustapha Fall Mbar mu ngi toog ak mboolem kilifa yi nga xam ne nii ñoo nekk fi nga xam ne nii moo di ci Baye Fall gi. mbokk yi jërë ngeen jëf euh, ñoo ngi nuyoo ci turu Serigne Fallou Fall jëwriñu sëñ Modou Amita di jëwriñu Serigne Cheikh Fall moom mi nga xam ne mooy jëruñu sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda sëriñ Modou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda yàlla na fi yàgg te ànd ko wér ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall mu mel ni sëriñ Amdi daa jot ndigal ci seex Cheikh Mouhamadou Mountakha tey jii di bisu altine di fukki fan ak juróom ci weeru tubaab ci daaray Cheikhul Khadim jii ñuy wax université Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nga xam ni sëñ Tuubaa sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké daa am lu mu fi naaloon ba tey jii nag sa borom dogal am lu ca sotti mu bëgg koo daloo waaye mu woowoon nag réew ak bitim réew góor ak jigéen mag ak ndaw fu ab taalibe mën na ne sa yaakaar ne ci Serigne Touba rawatina waa kër Cheikh Ibrahima Fall tey jii ñu ñëw fekk ko fii ci daara Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ji li université bi nga xam ni Serigne bi moo jox ndigal Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda ni ko dama bëggoon su altine jaa ca 9h na nga xëy si fii ànd ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi yëkkatil ma turu yàlla ba ñëpp a xam ni fu Serigne Ba am ma nekk fu ne Cheikh Ibra ci wet ga nga xam ne kon géew baay nii ngay gis eh, Serigne Fallilu toog nag tey jii ci kanamu waajuram yëpp ndax ni ko Cheikh Moustapha Fall jëruñam jee di waxee tey foo dem ci kër yi sëñ Fallilu mooy jëriñ ja moo tax ca fajar la xëy si ànd ak Cheikh Moustapha ak njaboot gi ñu jiitu si fii. ngir xoolal sëriñ bi li nga xam ne moom la diglee muy sëñ Muntaxa xoolal ko sëriñ Amdi ci suba ba nag tey nag ñi nga ànd ak seen waajur yi ña nga nee toog waaye ànd ak taalibe yi ci turu yàlla bi ca fajar lañ ko tàmbaloon ba nëgën si ndax bi ñëwee dem nañ jiitu ji xool fa baas ba nga xam ne fa la sëñ Muntaxa Mbàkke war a tàmbalee war a toog ànd ak président de la république ban fa jógee lan bàyyi ko ñëw fii ànd ak taalibe yi ñu yëkkat turu yàlla bi murid ñëw fii nag ngir bëgg a ay kàddu ci turu sëñ Falilu murid yëpp dégg ko ñu baas déglu sëñ Falilu Faal mbokki taali bi sëriñ bi nee na wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ci nee ci ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha Fall ñu koy wax sëriñ Amdi Modou Mbenda xalifa général de Baye Fall moom la sëriñ Muntaxa Mbàkke joxoon baat bis bii nga xam ni. ci la bëgg ubbi daaray Serigne Touba ji. ni woon nag waa kër Cheikh Ibra Fall. nañ jiitu si ci liggéey bi. indi fi turu yàlla wu wér. sëñ am di Modou Mbène nag yebal fi ay rakam ka jiitu ji jëwriñam sëriñ Cheikh Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ seex Ndiaye Mbeng ak mboolem rakam yëpp kenn desul rakkam yaa nga nee toog waa kër maam Saliou Fall ak Cheikh Ibra Fall ji ña nga nee toog ak nun murid yëpp ñu ngi ni ànd moom ñëw ci ndigalu sëñ Tuubaa yi kon nag sëriñ di Fall nee na. yéen ñi nga xam ne yéen la yilif. te fu sëñ bi yat ten joxoon ko ndigal mu woo leen. wuy si ngeen ko de. woote nag. mooy kaay leen jël. ku mën na ñàkk da ngay dem jëli. kon nag sëriñ am di Fall mu sëñ Modou Mbène nee na. mi ngi sant rakkam yu tedd yi mu bokkal Cheikh Ibra sant mboolem Cheikh Ibra Fall mépp. di sant mboolem kër Cheikh Ibra Fall gépp. ak seexam yëpp. ak muritam yëpp. di leen xamal ni li bi bëggoon ba tax ma woo leen. def ngeen ko de. ndax woo na leen. wuy si ngeen ko. nee na kun woo nag nga wuy si wàcc nga kala woon moo ci des nee na ñun nag ki nu woo lim bëgg mënal nanu ko de kon yàlla na nu ko defal. sëñ baa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. nga xam ni lii moom. bis la boo xam ni. bisub lislaam la. waaye dina am taarix nag. ndax lu àdduna gën a dox. liggéey bi gën a dox. ndax liggéey bi sëñ Tuubaa la. kon sëñ baa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. nee na nijaay média bi tam. nee na nii ngeen di def. sedd na xolum sëñ bi yéen média média bi de. sedd xolum murit yëpp. ndax and gi ngeen àndandoo. booloo def seen bopp benn. fas yéene ànd liggéey sëñ Tuubaa yéen média bi. mi loolu moom sëñ Falilou Fall nee na sëñ bi xorom sedd na ci guyu sëñ baa ngi ñaan nag fu am fu média di egg seen média yi yal na fa àgg te ànd ak barkeb Serigne Touba bi ànd ak barkeb Cheikh Ibrahima Fall nee jërë ngeen jëf mu mel ni bitim réew am na ñu ma woo ñoo xam ni ña ngay toog di ko seetaan en nga xam ne fi na ñoom ñii li nga wax ci média bi dañ koo jël def ko en direct mu mel ni ña toog ci seeni saal ak ñi ne ci euh, liggéeyukaaya di liggéey ñu ngi koy xool seen i appareil ñi di ko xool ci seen télé loolu kon Fall day dëggal li nga wax ci média bi nañ leen ñaanal ndax bii bi ma fi ñëwee Souleymane Amar mi nuyoo nan daanaka mat nan fanweeri caméra yoo xam ñoom ñëpp dañoo lëkkaloo def ko comme jotaay bii nga def di di séddante ci seen biir ba li nga bëgg lépp sëñ mu tax a bëgg ko ñu def ko kon Fall nañ seen ñaanal bu baax a baax waaw ba fan bëgg mu yegg fa nee lim li ñaanal kon yéen média bi mooy seen bëgg ngeen am ko rek ba man koo liggéeyal Serigne Touba nag muy waa réew mi ak waa bitim réew nee loolu bu ngeen ko amee seen suñu xol dina sedd nee na ngeen man kon li sëñ bi bëgg rek te yàgg ko ko jëfal lool nee jërë ngeen jëf foofu ngay wax ci sëñ Falilou Fall Cheikh moom sëñ Cheikh Fall xëy na ngay nii di nuyoo kon ñu may sëriñ Falilou mu nuyoo moom Serigne Cheikh Fall Khady Gueye jàmbaar ñi desoon ca xel koom moom ngay gis mu sëgg noonu. waaw jërëjëf Fall jërëjëf Fall waaw baax na